ay yenn réew yi dañuy cliquer rek. génnewaat li nga wax. non day ñëw léegi tout de suite ne la champion nga. ne waaw ne waaw waxoon ndax yaa ko waxoon jox la jox la jox la jox la cër bu cër bu garaaw. Hmm. mais xam nga lan lay ma doon wax euh, euh, Doudou. Hmm. ni man xaw ma xaw ma dara man dama jóge France xam nga ñëw fii di wax samay wax yoo xam ne maîtriser ma Sénégal man tubaab yi laa xam fii Sénégal dafa am ay réalité que hmm. li may wax du dëgg ñoom ñëpp dañ leen jàpp. ñëpp danay war a jàpp parce que Abdoulaye dafa sànq réew mi ñii ñëpp ay sàcc lañu. Aliou ndaw li mu wax dëgg la vingt cinq personnes ñëpp danañ jàll te dinañ jàll fii buñ jàllul ma bàyyi diw. am nañu waat. ndeysaan ne xaw ma dara. ni xaw ma ni ñu ne man man xaw ma dara parce que man man man man man aw ma lu may xam fii parce que xaw maîtriser wu ma Sénégal waaw ñooñu tey ji nii dama bëggoon ñu teg mooy li ma wax rek bu doon yéen dëkk dañ lay génneel affaire rek wax boobu rek ngay génneel rek Aliou Sow ñaari baat yooyu a rek affaire moo la koy génneel immédiatement hmm. technologie foofu la toll ci yenn réew yi rek day mel day day cliquer rek mu génn la affaire bi te bu la neexee sax nga limité ko par seconde. hmm seconde bobu waaw mom da la koy génne d'accord nañ ak yow ni CREI bi ay. baaxul la won caaxaan la. mais CREI bi dafa jël décision. ok décision bi. waaw ah. moy mais décision bu Karim Wade décision bu mm. bonne décision bu loi même loi bi bu bonné la décision dañ ko wara exécuter. wa kañ. non moy yone wa légui dama doon expliquer rek pour gaay xam. affaire bi ni mu demee pour ñi ñuy seetaan léegi comme que amaan nañ ko cent trente huit milliards. man ma jàpp ni sama pauvreté bi ma nekkee fan yii yëpp. wallaahi ndeysaan. Ah? Mhm. kii bokk na si ndax ku ñu fayoon suñu cent trente huit milliards peut-être gars yi compoon ma benn un million. dégg mhm. léegi ñu ne léegi cent trente huit milliards yi waxuñ si. Mhm. yaa ngi dégg pire pire ñu war a fay bu ba bourse cent soixante milliards. yaa ngi dégg. mooy. perte déjà jotoo 60 38 war a fayaat 160. 160 30 muy muy 300 et quelques milliards. yu nara a yu nar a seey nii 400 milliards. Ah. au nom de quoi waa ji day bokk xaw ma lan jaloo euh, euh. mais yow loolu yow loolu man man man commenté wu ma de. laa si laaj lan moo si soog commenté. mais parce que yow amoo importance. yow du doo dara. man duma dara. keneen du dara mais bëgg naa si am sa xalaat waaw de suñu xalaat xam mooy lan mooy non sa xalaat yow man sama xalaat mooy lan mooy gars yi gars yi nee man du ma dara man tekkiwuma dara ñoom Khalifa Sall ñoo tekki dara ñoom Karim ñoo tekki dara ñoom ñee ñoo tekki dara parce que ñoom ñoo war a di jiite réew mi dudu ñun dañu war a jiite réew mi ñun ñun tamit dañu war a am dañu am wàll ci réew mi tax may def li may def ne il faut ñuy xeex pour si ñiy changer mbir yi parce que ñii dañu ne ñoom ñoo fi nekk depuis 15 depuis 20 ans depuis 30 ans ñoom ñoo war a continuer di diriger réew mi Khalifa Sall lan la wax Na bokk rek parce que moom nee na dafa war a bokk dans un pays normal Khalifa Sall du un candidat Karim Wade du un candidat pas parce que loi euh, euh, loi loi loi loi contemporaine moo décidé, décider mais parce que moral morale koy bañ parce que doo ko sax xalaat parce que da ngay ragal aux États-Unis kenn du condamné nit ñu ne boo bu ñu la violé wala boo violé nit amuloo droit nekk candidat. soxlawul sax ñu koy bind. kenn ko ñu ko bind dëgg la. xam lu ñu lay bàyyi dañ lay le peuple bi. Hmm. ñu ko bind soxlawul peuple bi moo lay sanctionné. Hmm. pourtant aux États-Unis am homosexuel am transsexuel am liberté nu la neex ngay solo bu la neex sax nga sol slip wala nga sol lu toll sorte seen drogue slip dox ci tali bi dox ci mbedd bi amul droit wax la kenn amul droit agressé ku la tooñ nga yóbbu kaso ñu ñu sànk ko waaye dëkk boobu pour kii jiite réew. dafa war a am attitude bu mu war a am. dëgg la ki lay sax doo sax ñeme di dem naan da ngay nekk candidat que xam nga li lay xaar d'abord rek même bu fekkoon dara musulaa dal mun nañ dem sax seeti loo xam ne américains yi xamuñu ko woon. Mhm. juste rek pour wan américains yi yow lii danga ko doon nëbb waaye nii nga mel ak lii nga mës a def. Mhm. pour rek décrédibiliser la parce que xam nañu loolu bu ko américains yi ame ak noo mënti doon ak mhm. dayoo boo mënti am ak xaalis boo mënti am ak xam-xam boo mënti am. du doo mës duñ la mës a def président de la république. fii da ngay def ay mbir am benn espèce su légitimité historique. maanaam sa yàggu teef ci euh, euh, yoonu politique rek. mooy tax. Euh, euh, ñu ñu si loolu rek lañ lay xoolee. Mm. ñu ne yow da nga war a continuer di bokk man dama gisul la moo tax Khalifa Sall war di bokk tey jii man dama gisul bu fekkee ni kër dafa décidé ni waa ji dafa war a fay 138 milliards. ana lu tax duñu lijjanti problème boobu parce que CREI bon naag bonul lu fi nekkoon la te kenn mësu ko dindi. te dañ ko war a exécuter une loi boo xam ne république daf ko teg ba pare mu dal ci kenn. kaa mm. defuñu ko mais parce que dafa war dañu war a lijjanti c'est nos hommes politiques qui nous posent un problème dans ce pays-là toute façon homme hommes politiques, il faut ñu nous leen fi ci réew des Nous ñoo demoon def seen nous entre décisions pour continuer à garder le pouvoir nous ci seen biir bu dul Dieu, di Dieu, bu Nous di sont nous na ci nous nous parce que nous nous bokk parce que qui. ñooñu

parce que tout simplement de me ni ñoo dañu am xam-xam dañu am jëriñ ma jël risque wone que pour Sénégal yi mu parce qu'il y a toujours une première fois waaye fi Sénégal il faut que ñu xam la il faut que nous. fal sax da nga nan pas. ken xamuko ko ko votel da ngay voter. alors que nit mun na ñëw mu am ay idées yu bees am ay idées yu amal réew mi nga war parce que koku sax leen pour que un jour seen dëkk bi am pourtant gaay duñ def tay bo Aline Sow ak euh, pour pour pour pour élections je suis sûr que Khalifa Sall dina ma dóor ba ma yegg terre. Mm. pourtant Khalifa Sall gënuma président de la République. Karim wad gënuma yeyo président de la République Karim wad euh, ëpp ma xam-xam xalaat ci réew xalaat kese la population bi mooy mooy mooy mooy mooy mooy prouver kan moo ko euh, ba pare euh, par les votes ni diw doy nañu pour pour pour ñu mën ko jiital pourtant def nañu en sorte ci wàllum communication ba nga xam ne tey jii nii Karim Wade bu jàkkaarloo woon ak Aliou Sow élection Aliou Sow du gis du gis du gis du gis ngelaw. ndax da koy roppi comme pas possible alors que xëy na sax Aliou Sow moom moo war a defar réew mi.

a ah, war na amal njëriñ Sénégal Doudou Coulibaly nga jël ko nga woo ko nga ne ko diw man dama bëggoon li ngay wax ne am na yu aspect yu bari yoo xam ne man am naa expérience ci réew bi journaliste la yàgg naa ci réew mi yàgg naa ci milieu médiatique yow li ngay wax am na solo gëm naa ni am na ay fànn yu bari soo ko waxee sénégalais dina leen amal njëriñ nga indi ko fi invité ko mais Aliou Sow c'est très rare ñuy def loolu waaye Aliou Sow ngay invité ak keneen ak keneen koo xam ne xam nañ ah, fi wax li nga wax yëpp pourquoi ki war a nekk candidat pourquoi ki war a nekk candidat pourquoi man du ma nekk candidat ah ñoom nu ñu amee sañ-sañ xam ñoom dañu ne nañu bokk rek ay ah, yow lu tax bokk. man su ma amee su ma xaalis. Hmm. man su ma amoon xaalis xaalis bu légal lew ma li mën ko liggéey ba téye ko kon du ma wóolu Karim Wade ma wóolu Khalifa Sall du ma wóolu Ousmane sonk du ma wóolu makki Sall du ma wóolu keneen ak keneen ak keneen sama bopp lay wóolu parce que xam naa.

dem ba Koumpentoum dem ba Wuro Sogi dem ba daggana euh, wàcc ba ba ba ba dans le Saloum Kaolack dem Ndangaan dem fu ma neex wàcc ba ci suuf dem Diourbel dem à l'est dem Tambacounda dem tout le Sénégal oriental wax ak ñoom kattanu financier boobu am naa kattanu physique bi ak yaram bi ñeme naa fanaan fu ma neex waaye je ne suis pas dans les conditions financières pour le faire man su ma ko su ma ko amoon tuutu. ba amoon financement bi. ma amoon financement ba amoon financement bi dem. alxuraanul karim laa lay waatal. man May def sama candidat candidat élection présidentielle té amna katan doolé bo xamné psychologiquement et physiquement je pense être en bonne santé pour faire def campagne électorale préparer sénégalais yi ñëw dama bëgg candidat té bu plaires. rek lépp parce que xam nga parce que euh, bo may am ay des fois ay sympathie wala manque de sympathie vis-à-vis de certaines personnes parce que dama gis ni man pour réew c'est pas la personne qui est importante ce sont les idées par exemple quand Ousmane Sonko boy, koy xool ni Ousmane Sonko par exemple ses méthodes ne me plaisent pas façon bi muy bi politique, bi muy pas. man neexuma waaye pas Pastef man daf ma neex état d'esprit Pastef ñom njëkkuñu ma ko bo sagane man maa leen ko njëkk xalaat parce que 2007 li ngay wax fofu tam lo tam c'est contradictoire quoi chaque jour nga dem ci plateau yi di ko mais loolu c'est contradictoire non du chaque jour ma dem plateau